mën naa ko jub waaye nag sant naa naa ko ndax mu xamee tàmbali ma ndax léegi dégg ndigal rek lañ ko mos a fonk ay waajur liggéeyal na bàyyam ba bàyyam sant ko gërëm ci kanamu mbooloo mi fonk naa ndeyam fonk ay seen xaadim rakkam yi yu jigéen ñi ñëpp wax dëgg yàlla ñoom ñëpp rafetlu nañu ànd bi ñu ànd ak ndax daal ba seen bàyyi demee lii sonul sonul ci yaay man daal li ma koy ñaanal mooy fu mu bëgg yegg rek yàlla fa yegg magam